jërëjëf mbokk yi nga xamante ni yéen ñuy bàyyi xel fii ci Bprod Media ñu leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel comme ni ñu koy defee saa su ne ngoonalu làmb duudu ak buur waaye ca ma nuyoo boobu di ñaanal ñi nga xamante ne ñooy aji dawli yàlla yërëm leen taxarale àjjana ñu nekk ci hôpital yi borom bi fëgg seen bopp ñu jug waaye ñi caabi féete ginnaaw yàlla may leen ñu génn ñu nekk bitim réew borom bi may leen ñu am nañu ñu indil seen njaboot yi di ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp. di baalu ñëpp àkk di ñëpp àkk ndax wax neexul buur maa ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel. jërëjëf Doudou yow tamit ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar di ziar l' ensemble des internautes yi ñuy seetaan ci àddina bi rawatina les Sénégal de la diaspora xanaa rek <clears throat> di sant yàlla di julli ci alayhi salaatu wasalaam di ñaanal suñu wajuru jigéen fa mu tëdd yàlla na ko fa yërmande suñu borom fekk moom ak kom fa fekk ak ko fekk. di yàlla suñu wajuru góor du fi des ak suñu tante yàlla bàyyi leen fi waaye di féddale suñu njëbbal ak suñu yaakaar ci Cheikhul Xayri Mawlana Cheikh Ibrahim Mbacke ibn sëñ Mbacke di ñaan yàlla yàlla na ko sama borom dafa riddan barakatan wa rahmatan fi barakat Cheikhul Xadim si Cheikh Madina mi nga xam ne tey moo toog ba jotaay borom Madina yàlla dimbali ko jàppale ko taawale ko ceen bu diis bi nga xam ne ku dul borom attanu ko di ndokkeel borom jataay bu taaru bi Cheikh Mouhamadul Muxtaar ibnu Cheikh Mahamadul Musal Karim yàlla bàyyi ko fi bàyyi ko ci kanamu njaboot gi waaye di ndokkee rek góor ga ne woon illaahi kalimatillahi uliya Cheikh Mahamadul Muntaqa ibnu Cheikh Mahamadul Bachir di ko ñaanal yàlla chantier yu rëy yi mu naalal Cheikhul Khadim yàlla dimbali ko may ko mu yeggali lépp lépp lépp lépp te ñu ànd cek moom ak murit yi ak taalibe yi di ziar mbokkam ah, sëñ Abdou Modou Menda moom ma fi toogal tey jotaay maam Cheikh Ibrahima Fall waaye di ziar Xaw mi Seydil Boubacar di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi waaye di ko ñaanal Cheikh Mamadou Mokhtar doomu Seydina Madione di ziar Cheikh Mouhamadoul Mahi di jaale rakkam ji rek ba tey Cheikh Mouhamadoul Aqibu di ziar waa Canaba waa Jaamal ah, waa Pire waa Canaba eh, di ziar ak ndokkeel njabootu Thierno Moulou Foutiou di ñaanal waa jàngu bi dund di ziar ñëpp di leen di ziar ñëpp am na solo nuyoo boobu nga xamante ne euh, tàmm nga ko di baax yi ñi nga xamante ne ñoo ñu seetaan mais buur problème bi commencé na de. problème bi démarré na na de <coughs> te dégg naa la nga <coughs> yàgg alaaji coqali. sàppali sàppali ngeen di wax loo xamante ni. Mm. defe naa ni xolu iblis yëpp kontaan nañu. <laughs> ndax làmb dafa baaxoo wax. Mm-hmm. te jamono ji làmb nag. buur neexul ba neex mais moo téye réew mi Sénégal mm-hmm. ñu gis Siteu génn wax tontu ki nga xamante ni moo di Aziz Ndiaye waaye ñetti pàcc rek laa koy def ndax waxtu wi coono yeeg yooyu yoon bi dafa xat wax na ci ki nga xamante ni moo di Balla gay fa laay njëkk mm-hmm. balaa maa ñëw ci Aziz Ndiaye ak alliance Modou Lo neex a faral dimanche nee na Balla Gaye li leen boole mm-hmm. du contrat waaye li mu soxla mooy roi des arènes bi te moom moo ko nar a téye Balla dina ko soxla. jërëjëf Doudou dañuy wax félicitation à Siteu xam nga li tax fi mu dugalee euh, communication c'était à son heure mooy dañu gis Alburax ak Gaston production taxawal ay affiches yoo xamante ni que communication bi dafa drastique mm-hmm. te moom mu war a bëri un combat royal boo xam ni. pratiquement sentiruñu woon communication bi wax dëgg yàlla mooy bàyyi Ndiaye Albourakh Events mu ngi taxawal affiche yoo xam ne communication bi dafa kawe mooy ci diggante Tafatine Shahidallah Balla Gaye 2 gis nga communication bi ni mu amee doole ñu ne deetewaay Sa Thiès Eumeu Sène caar fi ci communication ñun deetewaay Ama ba Gris Bordeaux Zos Liss Ndiago guy gi Ada Fass te ñoom ñu bëre combat royal donc jot na euh, Mansour Ba commencé sonder sa communication dëgg la combat bi cinq mois moo ci des mais cinq mois bariwul aussi ci combat bu mel noonu bu fekkee combat bi boo xoolee am na yeneen pàcc yoo xamante ni ko war na ko am donc pour wane l'existence du combat il fale que woon benn communication bu drastique am am ci te effectivement c'était la réussite mooy wane ni chaque jour tëggal ko moom combat dafa yomb ndax li tax mu yomb mooy liy jëm ci marketing ak communication combat bi mën nañu wax ni ak quatre-vingt-dix pour cent moom Siteu moo koy def te démb wax dëgg yàlla Siteu dafa dafa cokkaas rek dëkk bi yëngu wax na nag ba dugg ci Balla Gaye dugg ci Aziz Ndiaye xëj na su ma ko doon rectifier tuuti rek mooy un contrat c'est un contrat maanaam les secrets d'un contrat ne se révèlent pas mooy buggoon Aziz buggoon na mu bëre leen Max demoon na fa ba ñu waaj si ba ñu nangam nangam nangam loolu c'est les secrets d'un contrat mooy Albourakh Events ay promoteur la ñu bëri na tey ak Modou mais suba Albourakh Events war nañ ko mën tëgg donc réserve daf ci am parce que bu subaa bu ñu waree jëflante moo tax maanaam warul ñaaw ba yegg ca pour suba que ñoom bu ñuy jëflante seen ba jëflante bañ a benn gêne xaw ma sa comprendre li wax Dodo donc côté boobu c'était pas essentiel mooy mënoon na wax sur ses adversaires rek amul problème mais ku mel ni Aziz bon xëñ na clash ko wala attaqué ko pour man ça porte peu njëriñ li maanaam bëriwul quoi donc pour la prochaine fois mu bàyyi ci xel benn bi ci des. mooy Siteu tey su bëree woon ak Modou Lo quel que soit l'issue du combat bu sañoon bëree ak Balla Gaye 2 wala soit que boog amateur yi buñ sañoon mu bëree ak Balla Gaye parce que digganteem ak Balla Gaye sori woon naa ci waxaale bi ci nangam nangam demoon na sax ba nara a yegg à terme xëj na gis na beneen proposition bu ko gënal muy bëri un combat royal li yëpp di ñaan donc loolu moo tax xëj na mu deltu ci gannaaw mais. Cité dafa nekk ci ñaari adversité wala boog dafa nekk ci ñaari adversaire mooy war na bëre ak Modou waaye it ak lu mën a am bëgg na bëre ak ki nga xam ne mooy Balla Gaye 2 wala soit que Balla Gaye 2 bëre ak moom donc li wóor ba wóor ba wóor ba wóor ak lu mën a am amateurs yi dinañu bëgg combat ak Balla gay 2 mais Doudou ban Siteu moo war a dajee ak Modou en tout cas il a le la confiance de bëre ak Modou xale la wolof da ni mbër bu ndaw moo fi jëlee mbër bu mag hmm. Siteu a toutes les atois wala toutes les acquis pour daan Modou Lo mais est-ce qu'il le fera pour man Siteu fi Modou gën a dangereux ci carrière ci la ko jëlee motlo Lo mi ak motlo Lo il y cinq ans wala six ans dañu wuute. bii bii beneen bii dafa nekk ci beneen niveau walla bokk ci beneen level suñu waxee dañaan buur dafa faa Modou Lo déedéet explosivité bi ci Modou ak njàmbaar dëkkuwu ko mhm. moo tax c'est ku ko ni combat bi combat bu yomb la wala bu nangam nangam yaa ngi koy wax li bëgg dégg mais combat bi mooy combat bi gën a dangereux bi gën a metti ci carrière parce que Modou Lo nag Doudou c'est Modou Lo ak lu mën a am mm-hmm. Modou Lo la donc te na xam ne que il a du pain sur la planche quel que soit Alpha Modou Lo est le favori de ce combat là. waaw non loolu maanaam sur les plans parce que Siteu dàqul bëri Modou dàqul xeex Modou Lo. ëppul fit Modou donc man fan la teg moom li mu gëm bari lay am ci combat ba man maa koy décider walla man maa koy doxal loolu mooy problème bi mhm. lan lay décider ci combat bi ak lan lay doxal ci combat bi. donc est-ce que moom mooy décider ci combat boobu wala comme ni mu ko waxee la fay am man maa koy def loolu mën gëmuma ko man buur je respecte bien mbër mu ma gëm ay potentialité am la mbër mu ma nangu njàmbaaram la mbër mu ma nangu fitam la mais Modou Lo kenn du ko aborder nii Siteu dafa teel a dugal Modou Lo ci combat parce que ñoom ñaar bu ñu delloo toute histoire ci ginnaaw am na lien yu leen boole mooy mooy ay lien de parenté ba jàppoon nañu du ñu bëree hmm. mais déclaration bi mu def démb offense la ci Modou mooy Modou Lo léegi gëm na ni que Siteu déclaré na ko la guerre te ñaare mbër yi ko déclarer la guerre yëpp amuñu leen neex ci combat bi waxoon naa ko lengs bi ko paakos bi keroog ba mu ko nee su ma la teeloon gis su la teeloon gis du def ci ñaar téeméer Modou Lo a pris ça comme une keroog moog booy ñaar ba ñu xëqantee laa ni booy Niang offensé ne ko donc dañu gëm ni que Siteu offensé na Modou Lo lu Modou Lo <coughs> lu Modou Lo doon def benn fi mu da koy def fukk lu mu doon def fukk da koy def cent lu mu doon def cent da koy def téeméer du lu man Modou Lo laa gën a ragal ci àddina néew ma Siteu mënu ko daan de waxuma loolu de waaye pour nga mën ko daan moom Modou Lo il faut nga préparer ko d'abord psychologiquement préparer ko mentalement préparer ko physiquement parce que aspect mystique bi jouetul ci moom mooy il a appris à devenir un vrai professionnel mm-hmm. te il est un vrai vrai professionnel combat bi nag annoncé na déjà sa couleur mooy que ak lu mën a am Siteu lim bëggoon am na ko mooy atteindre na objectif am ci wàllu communication ba ñëpp fi mu ne nii buñ sañoon combat bi di tey wala muy suba waaye ak lu mën a am Siteu doolu bu mu fàttali ni Modou Lo c'est Modou Lo bu mu fàtte ni Modou Lo mais buur bu ñu jàngatee li nga xamante ne mooy sorti euh, Siteu ku xool ba xool xam ni bi muy wax xool lay waxee mais envers Aziz Ndiaye la doon waxal euh, mi ngi laal Modou laal na Balla Gaye même waxkat yi sax laal na leen pour wax la ni euh, am na mbër yoo xamante ni bu ñuy bëree yaakaar nit ñi duñ ko am si ñoom ba tax na tey Siteu fi mu ne nii Modou mooy favori dëgg la mais am na ñoo xam ne am nañu ngëm-ngëm nii ak courage ni Siteu day daan Modou Lo. mën na nekk xam nga man ci làmb du ma ni jamais jamais man su may analyser dama koy teg ci statistique mooy ku ci nekk fan nga jaar lan nga jot a def ak lan nga mënee ak lan nga télé man noonu lay analyser combat mais que bu dee ci wàllu explosivité Modou moo ko ëpp ku moom ci réew mi bu dee ci wàllu bagaar. Modou Lo bagaar bi muy def moo gën a compliqué bu dee ci bëre Modou Lo bëre bi moo gën a sori moo gën a xóot da ngay teg la comparaison ci Modou Lo fi mu jot jaar ak ñu jot daal nga teg ni Siteu toutes les grandes rencontres ci bëri daf ko raté sauf digganteem ak Papa Sow sauf digganteem ak popaso Sow mooy ténor yi mu jot bëri bëreel ñëpp dafa dafa échec c'est ça la réalité dafay échec contre Gouye Gui dafa échec contre Sa Thiès dafa échec contre Lac de Guiers 2 il a réussi ak Papa Sow donc bu fekkoon examen la mu war a am sur dix trois wala quatre sur dix nga koy may c'est ça la réalité xam nga li may wax Doudou chaque jour communication ci monde làmb monde làmb dafa am benn problème. la problème mooy dañuy bëgg nga com nga communiquer ñoom ni leen arranger. te am na ñoo xamante ne que il ne fera ça jamais. mooy dañuy wax li ñu gëm bu dee ci terme statistique mhm. Modou Lo dafa raw Siteu lu bari bu dee ci ay qualité qualité Modou Lo plus champion ko Siteu naam Siteu est un grand champion mhm. mais Modou Lo li koy aborder daan ko loolu ça se prépare xaw ma nag Siteu mu ngi ci walla nekku ci mais bu ci nekkul woon na ci ne na ci nekk ci kemte lay kàttanam na ci nekk ci lu mu man s'il veut devenir le le nouveau roi des arènes parce que couronne bi ci ki mu nekk nii moo dul n'importe mooy ci ki mu nekk nii dafa boole téeméeri mbir ak juróom-ñaar yoo xam ne benn bokk ci ak sa morom loolu mooy dëgg dul mm-hmm. waxuma ci ay faamuloo ay nangam nangam nangam asi dëgg démb gën na tontu na si ta medlu melentaan taxul tan yi di biiw ci live bu Alaaji Sàppal de mën maa nga foon bi ko Alaaji Sàppal ne ko Aziz dégg nga Siteu dane ko kan mooy Siteu Siteu bu ngor nga yàq wala Siteu bu anti wala Siteu tarkindaa Fadam ne ko Siteu tarkindaa mu ne ko ah ok Siteu bi Siteu bi guy gi daanoon Siteu bi guy gi daanoon la wala wala Siteu bi Sa Thiès daanoon la wala Siteu bi Lac de Guiers daanoon kon cela veut dire il commence à minimiser Siteu Siteu bëgguma woon mu nekk entre mille feux mooy bëgguma mu am bëgguma woon mu am adversité Modou ba pare am adversité <laughs> les Ndiaye ñaay Abdoulaye Ndiaye am adversité Balla Gaye 2 mooy fi may tey bu doon Siteu la ak Modou Lo am na ñeneen ñaari adversaire yu ci dooleeku ok benn bi mooy Abdoulaye Aziz Ndiaye beneen bi mooy Balla Gaye 2. mais Aziz Ndiaye tamit est-ce que war a waree fam la moom it fi mu ne nii. fi si te toll moment yi. mu nekk di ko di ko yokk yenn. xam nga làmb làmb la xam nga ki nga waxal ba ne ko sama tur sax diw la bu neexee yóbbu ko fu la neex donc tu as dépassé les dépassé les limites mooy que ci côté boobu c'était pas une très bon communication mooy que gisuma woon nécessité communication boobu wax dëgg yàlla. mooy contrat la woon waxtaan ngeen xëy na contrat bi amul aboutissement yeggul wala xëj na kat dem nga ba ci biir ngeen désisté amul problème beneen bi ci des mu ngi naan waxati waxati waxati bon da ngay dégg sa ko wax way way diw ngeen waxal parce que diw dafa am xaalis dafa nangam ak nangam way diw ñun dépassé nañu loolu. man boog buur man su man je ne suis pas à la solde de personne Aziz Ndiaye bu ma ëppalee yebuma sama nawle la. Baye Ndiaye su ma ëppalee yebu ma sama nawle la Makan Mbeng su ma ëppalee yebu ma ba ci Mansour ba ñoom ñëpp su may nawle lañu man xam naa li may jar man buur xaw ma nag ñeneen nii donc gisuma ay waxkatu diw ay su ma ñëwee dinaa wax ak diw ay nangam déedéet làmb la rek ku ci nekk da nga jouer sa rôle ñoom bëri dañuy jouer seen rôle ñun waxkat yi di neexal dañuy jouer suñu rôle promoteurs yi dañuy jouer seen rôle est-ce mm-hmm. donc euh, pour man c'était pas une très communication ci aspect boobu mm-hmm. parce que ku nit ñi des fois dañuy soobal rek ak a neexal la ko wax rek mm-hmm. pour yëf yi neex mais jàpp ma ni am nañu ñun ak ñàkk fayda du topp suñu benn moroom mu góor mu duñu jox xaalis duñu orienté ñu nooy taalibe Sëriñ Tuubaa lañu lu waaye di gëm rek ñoo la gën a gëm lu waaye di bëgg ñoo la gën a bëgg nag ndax ci réew mi la ñu dëkk lu dëgg en tout cas euh, na xam ni muur la war a bëril wala ba waaye Balla gay nga koy xaar mu neex ak mu naqari su daanee ak bu daanulee Balla Gaye deewa nga koy xaar. mais coow li tamit est-ce que du euh, moom. Euh, tëggal bi ñu ko bëggoon tëggal te amuñu ko. moo tax ñu créé li nga xamante ne mooy nouveau roi boobu ci diggante Balla Gaye ak Tapha Tine. waa xam nga làmb aussi ku mu neex du da ngay am gis-gis. Aziz il a atteint son objectif mooy la mu bëggoon ñu coow ko ñu ngi koy coow kenn mënu ci dal ñu ngi koy coow <laughs> ñun ñëpp maintenant dana ko defam du ko def dana amam du am loolu l'avenir nous le dira mais ak sorticité bi gëm naa ne que Aziz fera tout ba moom li mu jot a wax noonu mu def ko loolu moom lu ma lu ma lu ma lu ma leer la mooy qu'il pleuve ou qu'il dana ko def. mais loolu tamit est-ce que bu ko defee du tooñ ci li nga xamante ne mooy waa CNG ndax jël couronne di ko joxe ci yeneen ñaari mbër te jugawul ci li nga xamante ne mooy waa CNG di leen jox nàmpaay di leen jox li leen war ci li nga xamante ne mooy. ñoom ñoo ñoom ñoo jëlul seeni dispositif balaa ñu yegg si fii. waaw affaire couronne bi luy waroon rek depuis belle lurette belle lurette donc buñ ko réglé wulee ba léegi keneen ku teg couronne bi mënu ci dara parce que ñoom ak lu maanaam da ngay dégg bu ñu wax seen communicat dañ naan couronne bi fi nekk reconnaître luñ ko. néew ma Modou Lo le roi des arènes li may wax dafay leer Modou Lo est le roi incontestable des arènes amul ma dem te ñëw mais ce couronne là n'est pas reconnu par le CNG. keneen ku fi indi couronne tamit du couronne boo xamante ni que CNG daf ko reconnaître. waaw mais pour ñi ñuy seetaan ñoom ñu mën a xam loolu jàpp loolu. Modou Lo mooy roi des arènes kenn mënu ko bañ moo daan ñi fi daan roi des arènes yi mm. mais tey CNG tamit est-ce jotul si diggante xuloo yi nii mu jaaree fa régler problème bi jël li nga xamante ne mooy matuwaayu couronne bi buñ ko régler wulee suba yeneen complication yu gën a soof yu gën a metti dina dina dina yeewu ci affaire couronne bi te bu boobaa dafay naqare régler mooy titre la boo xam ne jàpp nañ ne que mënut a ñàkk ci làmb nañ ko régler ñoom ñoo habilité parce que ñoom ñooy la comité nationale de gestion donc nañu ko régler une bonne fois pour tout pour mu jeex su fekkee ni régler wuñ ko bu subaa conséquences yu néfaste yi muy jur ci làmb ñoom ñoo koy indi te bu boobaa duñ ko mën a régler donc nañ ko régler balaa mu yéex maa ngi aviser nag ak di alerter boobu ba tey waaye dafa mel ni que kenn dégguma suñu réglé wul problème mu couronne bi suba ay wax lay jur. bés bu Balla Gaye 2 wala Tapha Tine toggee ci seen takk couronne beneen coow dana am. donc loolu nañu ko bàyyi xel Doudou. mais sénégalais yi nag ñoom xam nañ ñi Modou loo mooy roi des arènes. te ñëpp mu neex mu naqari. mu Modou Lo mooy roi des arènes. neex ak mu naqari Modou xarañ Lo est le roi des arènes. loolu mooy li am. xëy na bu ñuy wax nag dañuy approfondir suñu réflexion di wax tamit ñun ni ñu ko gisee kenn di nga tu fi <laughs> chrono Lo waaw ah, ñenn ñi dañuy jàpp ne ay buurgéwal dañuy sot eh, euh, Modou Lo ay ñii dañuy wax ndax non parce que des fois di nga lire ay yoo xamante ni dañuy les commentaires sont libres ah waaw les commentaires sont libres ñun les commentaires mënuñu atteindre objectif maanaam mënuñu atteindre psychologiquement déedéet dépassé nañu foofu man du duma xool sax ay commentaires man nee naa kuy commentaire di wax ci man leneen yaa ngi koy yàq ndax ma du ma lire ay commentaire ça ne m'intéresse pas quand même les commentaires nag sont libres ku ci nekk am nga droit bu la neexee saagaal bu la neexee waxal ci xalaat bu la neexee tuddal sax bu tudd li gën a xóot ci nit ki mhm. loolu yow la quoi mais ñun dañu jéem a essayer nekk ay nit yu constant loo xam ne lu ci nekk jàpp nañ ni buñ ci amee xalaat rek nañ ci wax suñu xalaat sans pour autant blesser kenn. mi ngi noonu waxtu bi xoj nañu ñu bàyyi la nga tàggoo rek mbokk yi ñu doon bàyyi xel fii si biir. waaw jërëjëf Doudou xanaa di wax ni wax dëgg yàlla làmb ngi dox ay jéego yu am solo. fi ñu demee ba lenn ci nguur gi fi nekk ne bëgguñu làmb wala du ñu pare ne làmb fa làmb gën a amee doole mooy benn facture de développement la benn facteur culturel la boo xam ne ay ndaw ñoo koy seetaan ay ndaw ñoo koy pratiquer donc promoteurs yi fi ñu teg seen tànk foofu la. mbëri aussi fi ñu teg si tànk ci wane seen bopp noonu la waaye lépp rek nañ ko def ci discipline lépp rek nañ ko def mu nekk benn aar. Mhm. mais bu mu nekk benn affaire boo xamante ne que suba ñu jëppe war ñu ñu jëppee làmb suñu sport la suñu sport national ñun ñoo ko moom ku ci nekk ñu ne da nga ci am boo xamante ni da nga ko war a joué doon. Fouta moo woote la première Pape Ndoye ak. Thiat mm. Daouda Fall. waaw Doudou euh, drapeau kii Sarr Ousmane Sarr suñu rakk. Euh, bërki dem gis nga daje nañu wala 2STV ca face to face ba diggante Pape ndoy la fantôme ak caatu Daouda Fall ah di moom it champion boo xam ne damay wax ni dafa juddu fekk ngemb li ci kër gi waaye di dajeek euh, xale boo xam ne lu moom xeex ko gënal bërki dem moo ko laajee ne ko léeg-léeg xeex ba ñàkk sa bés mu xale bi foog ma xeex ak moom munuma ñàkk bañ a xeex ak moom pam Ndoye Dodo lu manaam dina rayante ak Thiat Daouda Fall loolu kon yàlla suñu borom munu ci dara mais def très attention Thiat Daouda Fall dama gis ci moom mu jël tànku fay magam jaaroon bu ñu fàttee rakwàlin say deux la ah. doomi waalo waalo la ah. te ki muy dajal Fass man la la rak Lac Rose la am na fi bés bu nekkoon fu de production drapeau Ousmane Sarr incha allahu duudu loolu cuu lay doon cuu cuu waaw ñu ngi wax Ousmane Sy Diaziné. waaw Sy si moom da ngay waaru quoi nu fuute la xam nga mais quand ñu ngi koy nuyu wax dëgg yàlla bienfaiteur Ousmane Sy Diaziné di ko baax ndeysaan ndax liñ naan eh, wolof dafa nit ki jikkoo mokk ab lettre ñoo yem fañ koy jàngee fu ne borom du ko fekkee eh, néew na nga xëy soo ba ngoon te dajewul nit ku la wax ci moom lu baax. Mm-hmm. donc dañ ñaan yàlla yàlla ko yàlla barkeel. Sam si nee na riyaa bi dina ñëw Sam. moo Sam si ah. Sam si day Sam rek xam nga mais ah, yàlla baax na. maa ngi xaar maa ngi xaar ba gis ko. lu ma deful ne teraanga ju ma deful noonu mënu ma ko nettali. teraanga bu ma defagum nii munuma ma ko nettali jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ne yéen ñu doon bàyyi xel fii si ci Bprod di am mbégte ak contentement comme ni ñu koy defee saa su ne nii la euh, saa su ne bu làmb doxee rek chroniqueurs yi am nañ si part ndax ñoom ñooy wax yéen yéenay déglu waaye yéen yéenay seetaan euh, di wax Fouta Production la première suñu bés la nee naa la dañ koy topp ba bés ba ñu bàyyi euh, ñun ak yow Grand Yoff nga woote waaye Grand Yoff cent bi ñooy incha allah di jox dig daje rek gars yi ba beneen samsi dégg nga sa ji lu mu wax ñu ngi lay jox dig daje ba beneen jërë ngeen jëf.